I can see jaay yow lu mu mën a doon wax ma ko béy bii buy ma jënd ko di askan la baa yàq bu rëy boob ci mën a doon man am naa ko foo mën a dem waat waat Mansour le prof salaamaaleykum professeur. maaleykum salaam. ana professeur ak waay. affaire rek <laughs> bëri affaire rek boobu. ana professeur waaw waaw xanaa bëri bëri affaire rek. Ah. waaw bëri affaire. Ah. donc xanaa di profité ci occasion bi di la nuyu. ci dalal bi nga ñu dalal ci plateau bi. Mhm. di nuyu aussi le groupe Futur Média yëpp. doore ko ci kilifa gi nga xam ni mooy suñu papa la suñu xarit. di suñu idole le monsieur le ministre Youssou Ndour. Mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan au niveau national et au niveau international. Mhm. mbokk ngay famille xarit. am di jàmm koo mën a doon les élèves sama collègue yi. Mm-hmm. waa Mariama Ba maa ngi nuyu ñëpp. waa CETI maa ngi Mariama Ba Gore. Mariama Ba Gore professeur lan nga. prof de musique. prof de musique. prof de musique de bu defee musique wàcc na. ah waaw waaw waaw ah. waaw loolu la gaa yi wax <laughs> loolu la gars yi wax. alors euh, bii mooy ban moom. ah bii mooy jaay maanaa. jaay maanaa jaay maanaa ah. waaw moom sorti yàggul ah. ça fait juste ay un mois yooyu ah. waaw donc euh, mooy sama dernier single bu ma def euh, euh, jaay maanaa mhm. lan ci jublu lan nga ci jaay maanaa boo ko boo xoolee clip bi scénario bi ak ni mu déroulé nga déglu texte bi mhm. bon dafa am message bu ñuy bu ma bëgg lancer foofu mhm. parce que man bon ku xam ci suma euh, li may def ci sama musique damay euh, attaché trop importance ci texte. Mhm. ci texte mhm. parce que loolu la ñuy wax. yéen damay faral animateurs yeeg. Mhm. dëgg bëri di ko wax. ñoo ko bokk loolu dañoo faral way bu yeetewul diglewul ay nax waaw moo tax ma ni il faudra toujours joindre li ñuy wax. l'utile à l'agréable am na l'aspect esthétique fecc bi danse bi couleur yi et tout mais il faut aussi nga wax nit ñi lu ñu mën a jëriñoo loolu mooy jaay maanaam donc boo gisee scénario bi c'est juste une histoire euh, entre un, un couple mari et sa femme mm-hmm. ku ci nekk dafa jóge ci famille bu riche am doole am mën mën yàlla baaxee leen ñu mën seen bopp mm-hmm. mais ci biir sëy bi da ngay gis ni parfois ku jigéen ki day wane ni que man dama taaru suñu waa kër dañu am ba nanguwul sëy sëy bi normal ku góor ki tamit di ko wan ni man maay jiw fi ma jógee li ma am oto bi may dawal kër gi ma dëkk ba ku ci nekk parfois da ngay fàtte lan moo taxoon sëy bi jóg dëgg la donc mooy histoire way bi ba hmm. jabar ji noonu la jógee dem ñibbi kër yaayam hmm. waa ji toog fi mu toog ni du ko jëli xarit yi ñëw négocier ñoom asal waaw noonu dëgg la mais dem nañu ba ci biir ñu xam ni rëy lalul mbëggeel ralul sëy hmm. ku ci nekk jëkkër ji moo njëkk wàcc ku nekk da nga am looy bàyyi am na loo bàyyi moom waaye bàyyi na li mu jàppoon dem di jëli soxna si mhm. soxna si xawoon na mel na sax luy bañ bañ lu di réy réylu ba jëkkër ji ñibbi uh-huh. moom mu jëlal boppam ay bagaasam uh-huh. ñibbisil boppam di ko jëkkër ji gisee dafa kontaan ñoom ñaar ñëpp ñu wane nii donte ni meroon nañu mais xam nañ ni que sëy rëy lalu ko ci nekk bàyyi li mu jàppoon kii kii daal di ñëw uh-huh. parce que li leen boole moo ëpp li leen war a non seulement digle bi yeete bi waaye harmonie yeeg musique bi yëpp mën a àndandoo mu nekk luy neex tey jëriñ très bien yow bu si yow gën a xam yow xam nga ni musique loolu yëpp la laaj parce que da nga a euh, fexe toucher toutes les couches mhm. de la société mhm. am na ñoo xam ne image moo leen neex vidéo mhm. ñii li ngay wax moo leen neex ñii li ngay sol moo leen neex ñii mélodie ak harmonie yi ñoo leen neex loolu moo tax mu xaw a métti te da nga a def le tout ba loolu yëpp daje ci musique bi uh-huh. dina jafe mais loolu la jéemoon def ni offrir ko sénégalais yi te gis nañ ni apprécier jërëjëf ci sant yàlla bu baax ñoo ngi kontaan bu baax di la encourager. kontaan naa et puis le meilleur merci beaucoup professeur xanaa ko mayee rek waaw ma wax waa Sidi Fadia waa Ndar sama dëkk waaw maa ngi waajal bis incha allah bis boo xam ni kooku da ngeen ma koy may ñaan naa ko sama papa ak ñoom boobu problème may naa la ko muy le le le 5 le 6 mai incha allah ah, au Oblette uh-huh. muy première sortie officielle bu Mansour le prof uh-huh. avec son uh-huh. naa la bu soobee yàlla ma bëgg ñëpp ñëw jàpp ci ñu wane dara incha allah voilà voilà merci ñaanal kër gi yàlla ci yàlla def jàmm te mu jëm ca kanam merci beaucoup amiin amiin ñu bokk lépp euh, noo tudd yëkkati sa micro noo tudd Boups Mbaye Goro Mbaye Yaraax. mais Goro dama laa xam. ah bu baax sama grand nga sama xarit nga. mais fan laa la xamee. ah Boups xamoo fii. loo fi defoon. Boups ala onda Yaraax ah toj fii mu neex lool vraiment. non man ab lébu la ma boo waxee noonu damaa dégg waaye ñeneen ñi dañu dégg de. dégg neexul moo tax ña waxaate lay noonu. Boups. dama ni dama dëkk yaraax uh-huh. juddoo yaraax uh-huh. abab lébu def alab unda ca géej ga ca géej ga waaw dooree uh-huh. mu neex la lool nag vraiment may ngay suma grand <laughs> loolu neex ma baax bëgg ma ah, waaw waaw <laughs> ñu xool vidéo am te dellu siwaat léegi léegi woyee mu neex ngéwél yëngu na wini domi giwul biir ngaa borom baay baayu ndey baay mori ma ca Ndar mori ma ca Waalo ali benda balla bey mori jugandoo ma pàcce borom jal gaaf Ablaay Foore Mbaay Daara Wore Mbaay Kotu Samba Wore jigéen mori ngoone bay naar gaban ngoone bay naar ma xumba saa njege degen faal ali benda balla bey kewel du tëb moom doob jëbët Gora ni mu mel yaayam la nuru Gora Mbaye ni mu mel baayam la nuru yey doomi géwél la a Sall Meng doomi géwél la yaay Mamadou Mandela bàjjan sama yey ñu bëkkata bëkkata bëkkata feccal baara mbay marché yi bàyyu maam Seex cunaay sa yaay tamsir fa ak deretam Aziz Fall daa foog ku juddoo ak deretam Ndey Yaasin madame feccal Baara ma tëgg ci nday ñëw leen ñu Baara Saliou su ma yeewoo suba sama gaañi ma Abdou yeewu Modou Ndion Dutia Madior yeewu déggal yu si Njaay mu daw ma ngay ñam sabar ya cengewel ñun fu ñu ne foofu dafay saf ci géwél du sabaru ñun lu ñu bokkul du neex ñun lu ñu bokkul du neex Gora Mbaye yi xale yaraax gaa ngi noonu salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. maaleykum salaam Boubacar maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi maa ngi am jàmm di nuyu àdduna. ndeysaan di nuyu Sénégal. di nuyu fa ma jóge fa ma juddoo muy yaraax. waaw waaw ah nag eh, di masawu. nakar bi fi am barki démb ca daaka dëgg la ah, bépp jullit bu fa bokk rek ñu ngi lay masawu dëgg la naan loolu la yàlla bëgg mhm. te fa nu jëm yàlla na gën fi nu jógee barki maam Cheikh Rafal amin amin amin amin mbaa yaa ngi am jàmm doomu géwél lu ko war bubsu ah, doomi géwél xam nga morceau bi li ma ko wayloo mooy géwél rafetal rek moo ko war waaw ak bu fekkee lu yàqu mu defar ko sax bu fekkee lu ñaaw mu rafetal ko dëgg la ah, te ku ne xam na ni géwél luy rôlam mooy fekk lu ñaaw rek mu rafetal ko moo tax ma ni doomu géwél lu ko war ah. su fekkee lu ñaaw mu rafetal ko pour yàlla moo ñu sàq def ñu ay géwél lii neex na nanu defar ba mu baax moo ñu war ñun géwél dëgg la te bubsu looloo war géwél looloo war ku ne sax wax waaye géwél looloo ku ne te te yow yaa ngi koy def te bubsu mm-hmm. dafa am loo xamante nii barki Dembo Ndiaye Sénégal kuy artiste wala nga dëkk Sénégal bi nga ko déggee da nga kontaan muy muy bi ñu la defee directeur King FM man dama ci kontaan grand barki Cheikhul Khadim parce que baax ñëw naa fi ñu waxtaan yow ni ngay def artistes yi loolu amatul ba pare nag loolu faaw ma def ci dara balaa maa xuus ci waxtaan bi ndax ku ne xam na ni yow suma grand nga suma xarit nga ana sama gars yi eey ah. Boubacar laa doon seet yegsi naa waaw loolu <laughs> faa ma may la ko. suma xarit suma grand <laughs> loolu mënul ñàkk. mais yow ñu invité la pour nga présenter sa vidéo nga indi fi ay bongo. waaw parce que. <laughs> yow lépp ci ngéwal la. dëgg la. xam nga su ngéwal moo wootee dëgg la. te ku ne xam na ni géwal lu baax rek la xam. dëgg la géwal bu ñëwee sa kër si la. Uh-huh. kër gi day neex. dëgg la. fa fekkoon ñu meroo. waaw waaw dina fexe ba laajte. waaw waaw bu xoolee rek géwal bu ñëwee ci kër bu xoolee rek. Uh-huh. dina xam ne muy doxale dina la moo xew ci kër gi. dëgg la. barki yonent bi bu jàmm amee ci kër gi da koy xam hmm. bu fi jàmm amul bu dee géwél buy def loolu bu baax ah. dina dox ndànk ci kër gi laajte ndànk kër gi nu mu demee bu fa fekkul jàmm dina toog dajale ñëpp ah. loolu géwél la koy def géwél mooy wër di ñaw yor pusoom di ñaw voilà di ñaw ñëpp àndandoo waaw a yaraax aar ah, nag yooyu waaye yaraax sant yàlla falaa juddoo waaw waaw te vraiment sàggane wuñu ma dëgg la xam nga nee nañ géwél ci gox boo ko sàgganee da lay réer hmm. ma fonk hmm. man su may wax ci yaraax sax su ma xol day fees. dëgg la ndax dama gëm yaraax. dëgg la yaraax rek laa am. Mhm. fu ma toog ñoom laay bégee di leen wax waa yaraax man maa ngi seen ginnaaw à chaque fois. Mhm. di sàkku it ngeen nekk suma ginnaaw. dëgg la ndax ku ne xam na ni mbër buy baaxu ci day bëgg ànd ak tëggkat yu mën a tëgg ñu tuusal ko mhm. ñu koy jiin waaw te yéen yéenay su may tëggkat yéen waa yaraax mhm. ndax yéen laa am yéen laa min di nuyu ñëpp ci yaraax nag di leen mhm. bégee di béggee suma fan si club bi nekk yaraax mais costume yu rafet yi nga sol nii ku la ko solal xam nga man damaa bëgg costume costume yu xat nga sol ci bu xat <laughs> waa dëgg neexul xam nga buñ nee sañ see ngéwal waa ah, siwli see ngéwal bub su man nag jama sa yaay daf maa yàgg bëgg loolu baax. ndeysaan barki yonent bi bi may xale ba tey damay def clip sax sañse euh, léeg sama booy yi may ànd ak ñëw ne waa góor a ki dañoo romb diw mu ni góor a kan moo ko solal ku ko àll yére sol. dëgg la man leen mais dañoo xamul rek. dañoo xamul rek lu ma sol maa ko moom. waaw waaw te defe naa boo nekkee ci aar bëgg lu baax. Mhm. defe naa loo sol rek mérité nga ko. dëgg la su ko simi dama dem lijjanti ko ut ko jënd ko. waaw waaw vraiment ci laay dox. waaw waaw loolu laa bëgg. loolu laa am dëgg la loolu laa xam. buñ la woowee ci xew. Mhm. boo ñëwee kenn du tëj buntu ba. déedéet waaw waaw parce que boo ñëwee def ko sim ni borom xew ma. daf ko bu baax bu xat bu ndaw. costume nay xat. dëgg la xam nga ay produit corps dafa am. mais man ay produit sang laay sol. boo xam ne day mu ngi lëngaloog deret ji costume produit sang. mais Boubsou yow képp koy sañse yaay directeur am non c'est vrai adduna dañuy waxtaan parce que Boubacar sañse la la yàlla jox kenn mënu ci dara Boubacar ak ni ko yàlla bindee xam nga tamit euh, sañse du da nga koy forcer de <laughs> day nekk ci yow barki maam Cheikh Rafal boo ko forcé rek di nga sol pajam jaxat te doo ko yëg sañse day nekk ci nit yow loo sol mu rafet macha allah mais doo ko yëg <laughs> di sol padam jaxat mais doo ko yëg xamoon ni padam jaxat nga sol non grand bi dafa may faj dafa may faj mais ma euh, bul góor a xaaral ma dalal sama gan bi sama gan bi Italie la jóge Lucas come stai? bonjour bonjour bene <laughs> tutte, tutti, tutti, bonjour, tutti. Bonjour, je suis Lucas Santin. Un saluto a tutta la gente che Manuel à la maison et regardez l'émission. Excusez-moi, c'est mon français n'est pas bon, mais j'espère que toutes les personnes <laughs> comprennent un peu moins. Mais vous, pourquoi je vous invite Vous aimez la musique africaine moi, euh, je connais da beaucoup d'années la musique africaine parce que la musique africaine il est arrivée anche in Italie da beaucoup d'artistes ici, sénégalaise et autres sénégal. Et mon projet est de ici la, mon musique italienne et la musique italienne de tous les chanteurs plus connus au monde, que tout le monde connaît la musique italienne, avec beaucoup de chanteurs très fameuses dans l'Amérique, l'Europe, tout le monde. Et j'espère que parce que la musique italienne, avec beaucoup de mélodies, et sûrement l'Afrique comprend bien la mélodie de la musique italienne. Et à mon avis, il est un, un bel assemblage. Bel assemblage, association, belle <laughs> association de musique africaine. Oui, association de musique africaine et de musique italienne. Si, parce qu'avec un projet après... De, fusion. Une un fusion, un duo mm. de de la mon chanson assemble un artiste ici sénégalaise pour un single très très joli. Très très très joli. Euh, on va regarder un peu la vidéo euh, Merci. de ta musique et on revient. Vieux. Merci. ndax du ko sàggane kenn du ko sàggane da lay réer la notte fonde quante ombre vicino a me ho mani sporche ma non baci da vendere se i tuoi occhi mi hanno scelto senza colpe sono ostaggio nel mio viaggio sono perso cas, c'est joli comme merci, musique. Merci beaucoup. Hein? Hein? Ah, ah, c'est très joli. Et les harmonies. L'harmonie, un peu d'espagnol, parce que moi, la famille avec un peu d'argentine, et j'adore un peu d'harmonie espagnole, ressemble à la mélodie italienne. Super, Alors, euh, tout en Je espérant... Je fais un salut qui sont ici, là in Afrique. Ciao, ciao a tutti, a casa, tutte le persone che sono qua in vacanza o che lavorano qua. Spero di farvi contenti con la mia musica italiana che ho qua. Un bacione a tutti, un abbraccio grande e a presto, arrivederci a tutte le serate che faremo qua. Ciao. Ciao. merci beaucoup. ay eh, Goro merci beaucoup. waaw mhm. waa balaa maa dem nag. dina am lu ndaw lu ma fi bàyyi. waaw waaw parce que xam nga Bubsu di yëngu. Mhm. am xale am ñu lay jàppale. munoo mhm. leen fay. dëgg la te man Bubsu dama am fan si club. boo xamante ni dañu nekk partout dans le monde. Malick Diop jiito ko ñu naan ko Sokola Tito Diop. dëgg la. mu nekk Espagne. Mhm. nekk Barcelone. Mhm. vraiment di liggéey ci man liggéey bu am solo. Mhm. vraiment bëgg ma. fonk ma dajale ay nit ñi nekk Europe bi ñëpp la dajale. dëgg la am naa fan sa ba mu màq Alaaji Maxtaar. dëgg la barki yonent bi. yàlla na sant waaye raax yi ñëpp mànkoo. ñoo bokk lépp ñoom ñëpp Malick topp ci ginnaaw Malick Diop Malick Diop nag ah. dama koy ñaanal. amiin ni may jàppalee. vraiment. amiin kontaan nañ ci Malick Diop. amiin ñoo bokk di bëggee Racine Kane. jaajëf Racine xarit. waaw kooku mooy monté yi. moo defar vidéo bi moo may liggéeyal Siri Penda sama la penda bu ma ñëwee kër ga uh-huh. dama naan salaamaaleykum mu ne ma maaleykum salaam xam nga kër boo fa yegsee ne salaamaaleykum uh-huh. ah buñ la fayee uh-huh. war nga xam ne di nga toog wala doo toog penda daf may dalal di béggee Ibou Diouf mi ci kër gi ah di gërëm mais leen naa la ko wax de bu ñu jëlee temps yëpp ñeneen ñi duñ jàll de non bubsu dama leen di xajal ah. waaye nag damaa bëgg a wax sama bàjjan Ami Sall Meng bégge naa ko Ndeye Yacine borom maris bégge naa ñëpp adduna Diène Ndiaye suma xarit maa ngi béggee ñëpp gars yi di leen wax nag le 13 mai maa nga Kalima. Kalima soirée fans club bi. incha allah le 13 mai. na ñëpp ñëw di gërëm sama ñaari raq yi ma àndal. merci beaucoup ay yow ngewel bul jeexal yëf yi <laughs> merci beaucoup alors tout de suite le Kaysal Show